di nuyu suñu imaam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé di nuyu it nag suñu porte parole Cheikh Mahi Ali Cissé di nuyu njabootu Cheikh Ibrahima Niass yëpp ak mbooleem njabootu muqaddam yu mag yëpp di nuyu taalibe baay yëpp fuñ mënta nekk e, di yëkkati kàddu yoo xam ne nag maa ngi ñaan yàlla képp ku jot suma kàddu yii na ko tasaare kémt lay kàttanam ba nit ñi man koo jot bokk na ci kàddu yi nga xam ne saay bu ma ñaanee nit ñi tasaare kàddu yooyu dafay fekk la ca nekk may signaler dansé boo xam ne lu nekk ci kanam la te buñ ko seetaanee mën naa jur leneen te suma kilifa Cheikh Mouhamed Lamine Gim Ndiaye daf daan wax ne seytaane amut luñ seetaan moo am ngir bañ nag ak seetaan moo tax saay boo gisee luy raam jëm ca ñag ba nga yëkkati sa kàddu ndax olof yi dañuy wax ne waxoon naa ko moo gën foogoon naa ko moo tax toujours bu yu mel ni xewee ma yëkkati kàddu maa ngi ciy sant yàlla nag ndax saay su ma yëkkatee kàddu ñaan yàlla na nit ñi nañ ko jàllale kàddu googu dana tasaaroo ba àdduna bi ñu baree bari bari jot ci maa ngi sant yàlla it dina am lu bari loo xam ne dana ko saafara bi ci njëkkoon mooy yëkkati naa kàddu ñaanoon ñu jotal ko mooy bi ma gisee ñu bëgg a def ñaari tànt ci Medina dégg naa ci lu nekk waaye sant naa yàlla ba nga xamee ne kàddu googu kilifa yu jot nañ ñaareel bi bi nga xamee ne kilifa gi mooy Cheikh Mahi Ibrahima Niass dem na Dakar am ñu bëgg a yàq programme am ñu bëgg a yàq deru Cheikh Ibrahima Niass ba génnee ay wax yu ñaaw yoo xam ne Abdou amit Sarr waxoon na ko ci baay ñenn ñi di wax ci suñu xalifa dara ba taalibe Cheikh Ibrahima yi ñenn ñi mer ba bëgg a génnee ay ngànnaay yëkkati woon naa kàddu ñaan ne nañ ko tasaare yàlla def na ci sutura ba nga xam ne ngànnaay yuy jogut ndax bàyyi nga diglewul dóor diglewul saaga kàddu yi ma yëkkati tey nag dafa conserne faydu bi lu tax mu concerné faydu bi mooy dañoo gis mu am kuréel goo xam ne dafa nekk ci biir faydu bi kuréel goo xam ne bu ñu jàngatee ñoom seen doxalin dafay mel ni ñoom ñoo moom faydu bi ñoom ñoo moom Baay Ñas ñoom ñoo moom diina ji lu leen neex wax lu leen neex def te wax ja ak jëf ja du mujj fenn képp ku leen noonu yow yaay am gàcce yow la ñuy gàcceel képp ku ñu amal problème suñuy àtte ñoom lañuy jox dëgg képp ku leen neex ñu saaga la ku leen neex ñu tëkku la lu leen neex ñu wax ko bu leen neexee dugg ci barigo godoron ñuul kukk génn na damaa weex tàll te kenn sañu ta wax ne da ngaa ñuul te ñëpp dañ leen di gis ne dañuy ñuul kukk waaye kenn sañu te wax ne dangeen ngeen ñuul liñ sañ wax mooy weex rek gannaaw ñoo wax nañ dañuy wax loolu nag laa bëggoon nit ñi def ci taxaw seetlu te bàyyi ko te wax dëgg yàlla loolu nag <clears throat> warta mën a nekk ndax nit soo weexee mën nañ laa wax ne da weex waaye boo ñuulee it nag bàyyil ñu ne la da ñuul waaye waroo mun a wala sax nit ñi war ñoo mën a nangu yow nga coloniser leen colonisation bu toll ni yow lépp loo wax rek noonu la boo juumee ci xam-xam kenn du la gàggante soo waxee lu dawut noonu kenn du la wax ne li nga wax du noonu soo waxee dara kenn du ko weddi loolu yenentu yàlla ma sallallahu alayhi wa sax amu ko woon yonent bi muy wax ne yàllaa ko yónni dañ ko doon weddi muy wàccee lu firndeel ne yàllaa ko yónni Cheikh Ibrahima Niass radiallahu bi mu ootee ne mooy borom faydu dañ ko doon weddi muy indi lu saxal ne moom mooy borom faydu waaye toujours nit su fekkee ne yow da wax ne doo juum ci xam-xam te fekk yow sa xam-xam bariwut dëgg-dëgg la la doon noppal te noppal ñépp mooy nga noppi bañ a wax nga def ni mbokk yenn mbokki sëriñ ci di def mooy bu jotaay amee ñu solal la ba nga jekk nga sanc lool dal di toog nga bàyyi nit ñi nga xam ne yàlla nattu na leen ñu jàng xam-xam te amuñ fulla amuñ fayda wala yàlla nattu na leen ñu jàng xam-xam te bëgg aduna te amuñ aduna yow nga man leen a jox aduna wala yàlla nattu na leen ba ñoom ñu jàng xam-xam waaye gëmuñ seen bopp xamuñ fuñ jëm ñu ànd ak yow nga bàyyi leen ñoom ñu wax te nga sant leen ñu waxee ci xam-xam yow ngay yëngat bopp rek bu ñuy wax ngay yëngat bopp ñuy wax ngay yëngat bopp bañ pare ñu ne tàllalal ñaan ñu tàllal nga ñaan su ko defee nag mën nañ laa ooteel maqaama bu nekk te su boobaa kenn du ko mën a wéddi ndax li tax mooy al urru urrun maa lam yatakallam gis nga nit ki gor la fekk waxu waaye waxtu woo demee ba wax nag te wax ji nit ñi dañ ko peese parce que li yonent doon wax ne am na ñu ne xadis la ñenn ñi jam xadis ba mooy man samata naja boo noppee mën naa am nit ñi gëm ne yow yaa nekk ci mbir mi mos naa seetaan benn waaye ci télé mu oote ne moom mooy imaam Mahdi waaye bi mu ñëwee dafa am ku mu àndal ku àndal na kooku xam naa mooy borom xam-xam bi kooku moo koy layal di ko jàngal xadis yi di wax waaye moom Mahdi bi moom mënta wax su la yàlla nattoo nag nga bëgg oote ay maqaama ba noppi bëgg dara daraja yépp nga ràngoo ko yow yaay sëriñ bi yaay conférencier bi yaay waxkat bi te sa xam-xam soriwul yaay ootekat bi yaay borom maqaama bi te sa xam-xam soriwul ci ay njuumte ngay dëkk te njuumte yooya nag bu leen nit ñi gàggantee mu jur problème problème yi muy jur nag dara waral ko duut dañ laa tooñ duut dañoo tooñ ku ànd ak yow waaye nit ñi am nañ fulla ju toll ni wala am na ñu am fulla ju toll ni faydu biñ nekk muy faydu Cheikh Ibrahima Niass bi kenn du ko tilimal dañu taxaw di ko teetaan seen bakkan lañ ci joxe am na nit ñu am fulle ju toll ni tariqa tijaan bii kenn du ko taqal dañuy joxe seen bakkan am na nit ñu am fulle ju toll ni diina lislaam bii kenn du ko taqal dañ ci joxe seen bakkan laa wax léegi nag boo dajee ñooñu coow mooy bëri ak tukkuwante ak ay problème te loolu jaru xam nga tey li xew fan yi yaakaar naa dégg ngeen Cheikh Aboubacar Thioub di ndaw loo xam ne taalibe Cheikh Mahi Cissé la ndaw loo xam ne bi jàng jotee dafa jàng bi xam-xam jotee mu am la ko ci yàlla xamal bi joxe ko jotee mu di joxe xam-xam booba waaye tamit jël lépp jébbal ko Cheikh Ibrahima Niass ootewut benn maqaama ootewut benn daraja ootewut dara ci kanam Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu te ñiy oote maqaama ci kanam baay mën na leen a jàngal fukki at yoo xam ne du xool téere maanaam ñi koy oote fii ci Sénégal ñiy oote na ñoo doon na bàyyi Cheikh Babacar Thioub mën na leen a jàngal fukki at te du xool téere benn noppi moom nangu na ne xam-xam boobu mu jàng ak lam am noonu yëpp jébbal na ko Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu te loolu moo waroon képp koo xam ne taalibe bàyyi mu wax benn wax ci masala rek ay nit oo ko téléphone di ko tëkku ay nit oo ko téléphone di ko saaga ay nit oo ko téléphone ba di ko wax ne dinañ la boole ak ay bandi ay nit oo ko téléphone di ko saaga yaayam di saaga baayam waaye léegi loolu ba kañ ñu toog di ko seetaan barki démb Cheikh Habib njaay la tey Cheikh Babacar Thioub la suba kan la barki démb Cheikh Habib Ndiaye la tey Cheikh Babacar Thioub suba kan la suba suba suba mun naa doon ci suñ sëriñ yi kenn ñoom ñu attaqué suñ sëriñ yi kenn di ko saaga te suba wax duñ ci mën dara parce que sëñ jim daf laan wax ne seytaane amul seetaan moo am te lii nit ñaa koy seetaan te seetaan gi warewu nekk fi rek di buur di bumi yow lu la neex wax waaye kenn lu la gàgganti lu la neex oote waaye kenn du ko witti xam-xam bu nit man ta wax te bokkut ak bi nga wax yow du dëgg li nga wax rek mooy dëgg ku indi xam-xam leeral boo jumee mu gàgganti la nga saago ko ñu wax nga génneel ko jaat ñu wax nga ne di ko booleeg ay band ñu ray ko loolu man de li ma lay digal yow Cheikh Babacar Thioub jaru sax ngay laajte man ansaar yooyu la laa déedéet gis nga réew mii bëreetut ñuy dimbale yàlla ci diinam ji nit ñi alalu àdduna lañuy daw jëm ku am alal ku la ëpp alal ëpp la mbooloo su ngeen xuloo baalkal ne yaa ko tooñ wala moom moo la njëkk saaga su ngeen xeexee bu ñuy àtte yow lañuy ñuy téye walaw moom moo moom moo la ëpp doole li ko waral mooy lan mooy nit ñi ñu bari dañoo wàcc yoon wi nga xam ne fa la ñu waroon a tegee te xam nañ ko kat amul kenn ku wàcc ci yoon yi te xamoo ne wàcc nga yoon wi Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu dafa waxoon ay doomam bi mu leen di yóbbu ñu jàngi mu wax leen wax ji am solo fala yastaxfannakum almaadatu an ilmaana ngeen la waaye fexe leen ba bu leen maadda jël walis maana maanaam bu leen jiital alalu àdduna fàtte xam-xam loolu leen bàyyi digal fala yastaxfannakum al maddatu an il maana lum ci teg mooy inna lil maddati dégg nga qawmun wa lil maana aaxirin mu ne madd dafa am ñu ko moom am na ñoo xam ne ñoo moom xaccoo alal adduna bii médd la xaj yi ak tan yi ñoo ko moom ak lépp lu ci nekk ku koy xaccoo yaa xaj yi ak tan yi yéen a bokk yam bàyyi ñes na leen nag bu leen fexe ba bokk ci ñi nga xam ne dañuy séddoo méddam adduna mi daw leen ngeen dem ci xaccoo ji maanaa ya dégg nga mu teg ci lan ne leen iyaakum wa tasabbu'u bil mu'asirina maa ngi leen di moytandiku loo ngeen nidu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo wax ne dañoo dëppook jamono alladina taqat alayhimul maddatu ñi nga xam ne ñoom madd moom moo dee ci seen xol yi alal rek ay millions ay oto yu rafet ay kër yu rafet loolu rek moo dee ci seen xol yi bàyyi mu ne dooma bi fexe leen bu len bok ci lol ndax man tasaba bi qawmin ko minhum jàngi leen ngir bu ngeen deetee ngeen nek nekk waaraatekat nek ay attekat nek ay bureaucrate nek ñu jëriñ seen rew ci xam-xam waye bu len top aduna li ndigle bàyyi la lolou le Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu digalon ay domam bim len ebe 1965 ne len dem len ngeen jàng ci bobu boobu Mahamadul aqib ci la bokkoon Cheikh Mahamadul Mahi mi khalifa bi ci la bokkoon Cheikh Baba Lamine ci la bokkoon Cheikh Hassan Cissé ci la bokkoon Cheikh Aqibou Niass ci la bokkoon Cheikh Mamoun ci la bokkoon muy biata boo xam ne amoon na ci njabootam lu mat fukk ci ay doomam ak ñaar ñoo xam ne ay doomi taalibeem leen bàyyi jël leen yóbbu leen ne leen jàngi leen ngir bu ngeen ñëwee jëriñ seen réew waaye bu leen dem uti alal bu leen topp maada yi walis maanaay tey nag wax na moom Cheikh Ibrahima ci jamono booba ne nit ñi dem nañ ba maada yi not na maanaay waaye dëgg dëgg day jamono bi de Cheikh Ibrahima bim mu aduna ak léegi ñata at waye jamono bi de lam waxon de day gën rek madde yi not nañ maanaa yi waaw madda yi not nañ maanaa yi ku am xaalis lula neex waxal lula neex defal ku amul xaalis bo amé xam-xam noppi da ngay tankal nit ñi da nga bari wax lolu lañ lay wax dafa soof lu nit wax rek mu ne nangam ak nangam parce que amuloo xam xam amuloo xaalis ku am xaalis ku am mbolo waxal lula neex yëkkati sa loxo. juumal bu subaa ñu rafetal ko waaye ki amul xaalis am xam-xam rek ak jaamu yàlla ak mbëggeelam yow booy boo nga nëppi wala nga wax ngir yàlla kon man maa ngi lay digal yow Cheikh Aboubacar Thioub ne la wax ji ngay wax ngir yàlla waxal ngir yàlla faydu bi lépp loo ciy def def ko ngir jëmmi Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu waaw def ko ngir jëmmi Baye Niass parce que Baye nag gëmmut nelawut waaw te mu ngi gis lépp nag waxoon ne fal waylu kullul waylu liman laa yaltaqi hukmullahi mbugal ñeexal na koo xam ne nanguwut a jël yàlla yi ca nangu gu mat mu ne tekki ne laakin man balaqahu kitaabanaa wa taaba wa tadaaraka maa amkanahu fa lahu sa daarayni afallaa ama salaf képp koo xam ne jot na sama leetar man Cheikh Ibrahima ma ciy digle lu baax sama leetar mooy sama wax rek ku jot suma kàddu gu may digle nga tuub deltu ginnaaw yàlla jéggal na la paase léegi yow ngay saaga nit ñi barki dee mu nga saaga Cheikh Habib Ndiaye saaga bàyyi Cheikh Habib Ndiaye saaga yaayi Cheikh Habib Ndiaye génneel ko ay jaasi tëkk ko ne da koy ray dégg nga emoo ci sax nga ebal am mbooloo ñu dem attaqué ji ko mbooloo ma dem dégg nga mu def la mu def mbooloo ma daw amuloo ci loolu dégg nga moom dégguñ mu tontu saaga te saaga ñëpp ko man tey Seydou Aboubacar Thioub wax ñu saaga saagawaat Aboubacar Thioub tëkku Seydou Aboubacar Thioub génneelaat ay jaag Seydou Aboubacar Thioub bëgg koo booleeg ay bandi ci faydu bi ñu toog di ko seetaan ñu toog di seetaan loola. ah fa mu jëm dee du neex man de Cheikh Babacar Thioub li ma lay digal man man ci li ma nekk rek laa lay digal utal ñaar fukk ak ñeent utal ñaar fukk ak ñeent fukk ñaar yi na nekk ci sa loxo ndey poosu ndey joor nga xam ne foo geesoo jot ko fukk ñaar yi na nekk ci sa poosu càmmoñ foo geesoo jot ko fooy dem ci mbooloo fexeel nag ba mu valable jaarale ko ci yoon li jëm ci kayit ba mu normal fépp fooy dem na ànd ak yow waxtu woo gisee loo xamut nga défendre sa bopp waaw bul xaar nit bu la défendre de man ansaar yee ilallah te ñan ñooy dimbale yàlla bul xaar loolu de amuloo xaalis amuloo mbooloo xam-xam bi ga am daanaka nit ñi soxlaatuñ ko waaw bul bul xaar loolu de loolu de maa la koy digal billaahi boo xaaree loolu boo xaaree loolu du baax de defal ne man utal loolu toog gis nga dee dee rek la waaw dee moom dee rek la waaye kuy dee dee ci dëgg Seydina Aboubacar Sadiq radiyallahu anhu Seydina Omar Seydina Ousmane bët bés Seydina Aboubacar bi mu takkee xare di dem Seydina Omar na ko bul dem yaay xalifa gi def ko ne damay jiitu bu dee jotee ma dee parce que bëgg naa kon lii lëggéeyal Cheikh Ibrahima Niass képp ku ci dee ci jihaad nga dee moo tax bul deltu ginnaaw bul arrière li ngay wax ci xam-xam leeral ko bul ci mos a deltu ginnaaw waaye nag pareel sa bopp ndax yàlla dafa woo ne jël leen seen matuwaay kon jëlal sa matuwaay loolu laa lay digal de man waaw bul tooñ kenn nag jëlal sa matuwaay loolu nag su fekkee na amut ñu jaay seen bakkan bu jamono yàqoo bu amut ñu jaay seen bakkan jamono boobu du defaru jamono yéen yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu fekkoon ne amul saxaaba yu jaayoon seen bakkan konoon diina lislaam du mos a taxaw parce que am na ñoo xam ne lañ nekkoon dañoo jàpp ne mooy dëgg dañoo jàpp ne laata ak osa ak manaata mooy dëgg waaye joxe gi ñu joxe seen bakkan loolu moo feeñal tey dëgg am waaye ku ne xam ne yéen ci bi alayhi salaatu wasalaam bu doon moom ak moom rek kenn du xeex jamono sayyidina cheikh ba bañ koy génnee ba bañuy lak lakk nga di ko toj jamono bobu su amutoon ñu joxe seen bakkan konoon sayyidina cheikh tariqam bi du taxaw jamono bàyyi ñas radiyallahu anhu bañ koy génnee jamono ba muy indu sam ñuy wax ne kerek la indu sam dégg ngir sàmm diina kerek la bàyyi khutba ba wax bii aaya laa taqaafu wala taasan lii moo waral ñu muñ rek bi su amutoon ñu jaay seen bakkan and ak cheikh ibrahim ñas anhu bi man na am du bu yess buñ demee ba jamono tey nag faydu bi ay nit taxaw bëgg koo yàq ci xeeti xam-xam yoo xam ne dara du wut ci dëgg teg seen téere yi bopp yuñ formé seen xam-xam yi bopp yuñ formé seen maarifa bopp buñ formé seen fayru bopp yuñ formé yoo xam ne bàyyi ñes xamut ko Seydi Ali Cissé xamut ko Baye Omar Fati Diallo xamut ko sëñ Daar Ousmane Ndiaye xamut ko Maay Ibra Fall xamut ko dégg nga Seydi Ali Sile xamut ko muqaddami baay yu mag ya fa doomi baay Alaaji Abdoulaye Niass xamu ko imam Hasan mi fi nekkoon ko kilifa yii fi nekk xamuñ sayru yooyu kooku ci laaj du la ci tontu ñu bëgg wax ne lii la Baay Niass andi kon wane ne ñoom ñoo ñëpp kenn xamut ci woon yàlla ñoom ñoo xam yàlla di ko wax bëgg a traduire loolu dajale seen mbooloo dajale seen xaalis dàq dajale mbooloo dàq joxe addiya bu taxee ñu nangul leen tey bu subaa la ñuy yàq dootuñ ko mën a defar billahi lazi la ilaha illa huwa la muy yàq suba dootuñ ko mën a defar nañ leen xoo ñu nangu ne ñoom ñëpp ay taalibe Baay Ñas lañ ñu liggéeyal Baay Ñas jëm kanam bu dul loolu danañ yegg ci jamono boo xam ne defar dootul yombati gis nga ku sol sa muy xotteeku bu ne tereet benn yoon demal nga yóbbu ci tailleur bu ñëw ko waaye garaaw daal non ko boobu de garaaw mu waa nga ne garaaw su yàggee tailleur ba boo ko fa yóbbee dootu ko mun a ñëwaat sànni tuboo jooju ut beneen rek ngay def faydu bi nag duñ seetaan kenn da ko yàq waaw duñ seetaan kenn da ko yàq waaw loolu moom man de sama loxo yëkkati naa ko jaay naa sama bakkan bi man jox ko Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu xaaruma ci kenn nag premièrement billahi la ilaha illa xaaruma ci ku sant Niass xaaruma ci ku sant Cissé xaaruma ci ku sant Mbaw xaaruma ci ku sant Mbodj man xam nga kan laa xool bàyyi ñas rek laa teg ci suma kanam fay dum bi jaral na ma lu nekk bis bu ma ci dee bis bu ma ci dee na ñépp seede ne damaa joxe suma bakkan bët bu set ñu ngi may saaga bët bu set ñu ngi may menacer waaye man bis biñ ma bis bis bis buñ ma bëggee rey man bis bañ may rey bu boobaa faydu du ñàkk si Habib Ndiaye moom kenn faydu dina ñàkk ñu bari waaw dina ñàkk ñu bari ndax man moom du ma bàyyi sama bopp xelaatuma ko sax waaw xelaatuma ko sax mais nag lii dañ cee war a wax lii dañ cee war a parce que bàyyi na lim digle du ay saaga laa tadribu abadan laa taslimu abadan fa in duribtum fastabran innakum sabara bu leen dóor bu leen saaga bu leen dóoree na ngeen muñ dóor la wax de waaye bu buñ leen bëggee rey nag buñ leen bëggee rey moom bu leen nangu ñu rey leen kuñ bëgg a rey défendre sa bopp li légitime de défense am na te it ni ñu jàng leen xam nañ euh, su ko defee loolu kàddu la yoo xam ne bëgg naa ñëpp jot ci te ñu bàyyi xel ne dafa am bàyyi ñas maanaam dimension fu mu toll lépp luy yàqu liggéeyu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ñun waruñ cee taxaw mënuñ koo yàq nag waaye lépp loo xam ne daf koy tilimal war nañ koo daw muy ci kàddu muy ci jëf lu waay di jëf nga xam ne dëppoowut ak jëf bëgg-bëgg Cheikh Ibrahima jëppoowut ak ndigle Cheikh Ibrahima def ko mu nekk sa jëfi bopp te nga seede ne lii yow yaa koy def waaye bokkut ak li nga xam ne moom la bàyyi na si jàngale suñ toogee seetaan ay nit créer ay xeeti xam-xam dëggal dëggal ci boppi nit ñi ne leen xam-xam bii la Baay Ñas indi xam-xam boobu ñu ne moom la Baay Ñas indi boo gisee tey ñu bari ci ñoom am fitu di ñemee di wax ne doomi bàyyi xamuñ yàlla wala di ñemee di wax ne ñoom Seydi Ali Cissé jonga ñoom Baay ñoom ñoom Mayoro Fall ñooñ xamuñ yàlla parce que Baay indi wutoon Baay maarifa bi daf koo junji waaye joxewut ko woon comme Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu indee tariqa waaye joxewut ko comme Cheikh Tidiane ni mu indee fayda waaye joxewut ko bàyyi joxewutoon maarifa boo gisee ñuy am fit boobu di ko wax mooy dañoo bëgg a dëggal ci liñ nekk ñoom parce que ñoom xam-xam yii ñu nekk ñoom ñoo ko créer seen bopp lu ci ëpp léegi jël ko rax ci tuuti waaleykum salaam bismillah sërif marhaban marhaban bismillah marhaban bismillah marhaban marhaban bismillah bismillah bismillah ñoo jël ñoo jël bëggu créer ko bëgg a wane ne moo doon xam-xam bi Cheikh Ibrahima bii nga xam ne mooy mission Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu léegi nag su ko defee képp koo xam ne xamuloo ko xamuloo yàlla ku ko xamut nekkuloo taalibe Baay nax yenn taalibe yi def ko ci seen bopp yi soppi ko mu nekk business business boo xam ne ki ni jaral na leen ñoom ñu joxe seen bakkan yi ngir lu ba lu bëgg a xam-xam boobu ñoom ñu rey la ñoom wala ñu dugg kaso moo leen ko gënal waaw léegi ana taalibe Baay Ñas ana ñi bëgg Baay Ñas ana ñi bàyyi jaral ñu joxe seen bakkan ana ñi nga xam ne tey su bàyyi ña woote woon guerre danañ bokk ci ñuy dem ana ñooñu ana ñooñu laa wax ñooñu lu tax ñu toog di seetaan lu tax ñu toog di seetaan dara waralu ko lu màdde yi rek te màdde yi dëgg-dëgg loraange lay jur ñeexal am na benn lettre ci jawaay rasaayil su ma juumut lettre ba maanaam lettre wu fukk la ak euh, ak ñaar wala fukk ak ñett ci wasaayaa ci wasaayaa ci passe quatre-vingt euh, passe vingt-neuf passe wala vingt-huit bu ngeen fa demee da ngeen ko fekk bàyyi ñes radiyallahu anhu dafa wax ju wax ju am solo dafa waxoon ne surafaaw yi nga xam ne tey dañ doon ñëw ci dëkk bi am lu leen bàyyi ñes digaloon boo demee ci risaala boobu boo ko liiree da nga xam ne Cheikh Ibrahima ñes radiyallahu anhu mos ta jël affaire u caaxaan parce que mosul bëgg nit ki ngay dem ci moom di ko wax loo xam ne du dëgg ngir lan ngir am ci moom ak njëriñ waaw ma jéggalu bu baax ci dagg-dagg bi ndax dafa am benn ganu sëriñ bu ma si joge ca Mauritanie ci ñi nga xam ne ñoom ñooy wi yooyu nekk foofu moom laa doon tatagal doon waxtaan ak moom insha allah li ma jublu woon ci wax ji fi ma tolloon mooy lettre Cheikh Ibrahima Baye dafa wax ne nasihatun naaltuha lakum maatara awlaadin min surafa alladina naxaw wa suufiya wa hiya ittiqaasu irfatin li kasbi alalaali wa qatci takasubi biddawraani bi mujaradi sual wa tamci ورفع الهمة عن تلك العرفة الدنية ولتكن عرفتكم في السنقال تجارة أو كتابة أو تعليم أو عملا لا سؤالا وتمعا ومن لم يجد سبيلا إلى أحد تلك الأثقال فليرضى بالفقر والقناعة ويسقل بالعلم والذكر لي لباي نسوة بابا wax booba lim bañ mooy dafa amoon دين دان نيو سكر ne dañ daan ñëw ci kër diina fekk benn kilifa buñ defee xasida jooju ci moom ngeen kooku jox leen addiyee ñu dem loolu nag nekk xale yi bëri ko di ko def di ko tagg di tagg loolu te loolu dafa am lu muy yàq ndax bu nit waxee ne sëtu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ma bindal lijaasa bi ci ci alquran wala moo ma ko bindal ci nang wala sëtu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo wax bayit yi ci man wala moo def seede bii ci man loolu dafa mel ni su fekkee ne nekkuloo ci dëgg yow dafa mel ni sëtu yonent bi daf lay dimbale ci lu dawul dëgg bàyyi nag gis ni lolu commencé wonna bari Sénégal ci subiyanke kenn ku ne di xatio lolu ci la Baye Niass bindé lettre bi doomi surafa u yépp ne len li ak lahi biir guma len may la dégg nga mooy lan istiqasu irfatin ut leen liggéey li kasbil alaali ngir ngeen sàkku lu dagan wa qad sakasu bi bàyyi len bi dawraani bi mujaradi suali wa tamay bàyyi len di wor ci kër yi di laaji hadiya ak xemem nit ki bo xamé mu jox la xalif mais lim nek dang ko koy deugal parce que nit ko dem sobooteel ko lim nekk du la jox xaalis da ngay gis léeg-léeg nga nekk ci barab nga gis benn waay bu ñëw ci barab maanaam am na benn waay bu ne fa dafa jàpp ne kii ñëw Habib Ndiaye ma ko xaaral ma dëbb ko loolu dafa ko ñëw ko yaa fi nekk de Habib Ndiaye yaa fi nekk bu ko defee Habib Ndiaye ne la ah maa fi nekk de nga ne waaw Habib Ndiaye làmb poosam yëkkati cent mille jox la cinquante mille léegi nag su Habib Ndiaye rombee nga ne moo comme dafa dof rek nañ ko nañ ko bàyyi dafa def fekk yow yow miy jël xaalis boobu ak wax ji nga ko wax yow yaa ngi yàq parce que yaa ngi fekk sawara ba pare ngay jël essence di ko ci yokk nit bu nekkul ci dëgg dañ koy wax ne ko nekkoo ci dëgg bàyyi na ne leen na ngeen moytu loolu yëkkati leen seen itte ci métier mu suufe moomu noonu na ngeen fexe ba ne seen métier Sénégal bu ngeen am métier def leen commerce def leen ngeen commerce yi wala ngeen di bind ñu leen di pay kon loolu sax moo tax am na ñoo xam ne dañuy wax ne waaw Cheikh Habib Ndiaye yéen amu leen métier ah kañ ñun ñu ngi bind ñun ñu ngi bind di ñu ngi bàyyi ñu ngi bind léeg-léeg nit ñëw soxla am bind ñu bindal ko léeg-léeg nit ñëw am soxla ñu bind jox ko mu dem loolu du mbiri asraar nangam déedéet bind bàyyi na dafa wane ne mën naa nekk ab métier aw kitaabata loolu la bàyyi na wax aw taaliman ñu ngi jàngale tamit aw imlan wala ngeen di enu ñu leen di fay laa su alan bu leen laaj wa tamaan topp nit ñi di laaj dégg nga di dajale leen ma xaddee ji dafa leen nangam ak nangam nit ñi dañuy dem ba xaddee jooju poson laay nekk ñaar la parce que danañ la ci yàqal loo xam ne doo ko ñemee wax parce que boo ko bëggee wax ñu ne la xaddee ji la jox loolu la bàyyi doon bañal surapaaw yi loolu tax bàyyi waxoon leen na leen na ngeen bàyyi loolu te ngeen uti métier mu ne nag wa man lam yajid sabilan ila ahadi tilka al asqaal koo xam ne amuloo mënuloo bind dégg nga maanaam mënuloo ñaan mënuloo bind mënuloo def tijaara denga nga lo enu ñu lay fay lo jàngale yii yëpp mënuloo ko baye mu ne su boobaa fal yarda bil faqr ne gërëm fal yarda bil faqr ne gërëm ak ñak wal qanaata ak doylu way saqil bil ilm wa dikri mu soxla wo xam-xam ak tudd yàlla bu boobaa rek yàlla dina ko andi wërsëg parce que ne yattaqillaaha la lahu makhrajan wa yarzuqhu min aysu la yahtasib kon ma ngi wax ne ñun bay Point ñun bay Point yëpp la wax nak ñu ngi yëkëti suñu kàddu di soutenir Cheikh Babacar Thioub di ko wax ne ko ku la laal ñun la laal te képp ku la attaqué ñu attaqué ko te képp koo xam ne laal na sa karaw gi bañ yëg ne laal na sa karaw gi sëriñam bi tax wala kilifaam bi tax ñu laal sa karaw gi balaa ngoon di jot danañ laal karawam gi moom itamit loolu moom ñu ngi lay soutenir ñun waaye bàyyi point yëpp di la wax ne ilal amaam wa unaakal maraam bu ragal dara liggéeyal bàyyi nes amul ragal baa u nufuusa samma wal amwaala la bàyyi waxoon baa u nufuusa dañoo jaay bakkan yi wala am waala jaay xalal yi dégg nga lu tax mooy jox ko Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ñun suñu bakkan yi jaay nañ ko jox ko Baye Niass bu ragal dara bu la kenn teree jàngale ji jàngale jil doxal ci terrain bi ñu la wax demal rombal kenn du la laal wallahu yaxsimuka min annaas wallahu yaxsimuka min annaas bi jaaye ahli yóbin aqilin taamin tamumin dakyonin xayomin xaayimin nasdin barqaasin barqaasin yaa rabbal aalamiina yal na la yàlla sàmm te sàmm ñépp ci barke yonent bi yal na yàlla dindi caaxaan yi nekk ci dëkk bi yàlla na yàlla génnee caaxaan yi nekk ci dëkk bi yàlla na yàlla arrêté làmmeñ yi nga xam ne dañuy saaga nit ñi ci fayd bi yàlla na yàlla arrêté seen làmmeñ ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam yal na yàlla tëj seen gémmeñ yi ci saaga seen gémmeñ yooyu yàlla nañ ci tudd yàlla te bàyyi saaga yi yàlla nañ xam dëgg yàlla nañ xam ci bàyyi ñas ndax buñ xamee bàyyi ñas topp bàyyi ñas foofu lay amale kàddu gi maa ngi jégalu ci guddal bi seen mbokk loon Cheikh Mahamadul Habib Ndiaye Alkaymoor yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu